jaajëfatee la mifa. Salam à vous ziar bu baax tay di len merci et re-bienvenue sur notre chaîne YouTube Kenza 221 la chaîne des plus belles chroniques et comme d'habitude vous avez la voix de votre sister Kenza yé votre adorée animatrice de luxe Maintenant, que sama m'a tay dañuy ñew wax ci deux sujets bah ouais deux sujets qui concernent deux artistes rappeurs et qui sont BMJ et ak ki nga xamante ni 21 ci ñom ñaar rek lañuy wax seen sound ñu mujjé génnee bon bo len xolé yéex nañ ci wax lool sax mais du dara c'est que temps yi affaire yee tar yéen a ma gëna xam mais de toute façon dinañ ci wax expliquer et détailler après ku nekk mëna wax xalaatam ci commentaire yi. mais nak avant ñuy xoss ci deux sujets yi les gars veuillez s'il vous plaît vous abonner sur notre chaîne YouTube Kenza 221 et d'activer surtout la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos go ñu alors on est de retour comme nous ma len ko waxé rek l'intro deux sujets le premier sujet concerne BMJ, sound bu mu intitulé monsieur le juge et enfin le deuxième sujet concerne j 21 sound bu mu intitulé Fagaro. mais nag dañuy ñëw commencer ci premier sujet bi qui concerne BMJ avant ñuy xus ci bagage yi nag nañ dem xooli tuuti rek ci vidéo BMJ bi ñëwaat léegi-léegi ay ca let's go xalaatul pour sa mifa protection ba la punition loolu mooy sa wareef pas dimbale ñu ëppale doo aw ma avocat li mooy dem guerre sans am munition tànnal ma koo xam ne ñi may tëj ñoo koy jox pour mu job fexeel ba faroo ak ñoom boursu bal buy raye étudiant coupable bi ko tiire nekkul gis ngeen loolu mooy vidéo bi c'est intitulé Monsieur le juge boo leen xoolee nag BMJ yàgg publier affiche bi ni dina génne benn sound boo xam ne c'est au nom de Monsieur le juge sound boobu nag moo nekk nii avant tout lu ñu gën a marqué ci sound bi mooy thème la en plus BMJ gëj na dóor sound boo xam thème la bien vrai que ne mu ngi dóor ay sound yu nice et tout mais gëj na dóor sound boo xam ne thème la sound bi nag dafa doon thème bu am solo thème bu am importance au fait. parce que thème la boo xam ni si doxalinu suñu justice réew lay wax parce que nag dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey à vrai dire maanaam suñu justice bi affaire de bras moo fay daw daal ci gàttal la justice c'est pour les baado la parce que boo dégloo BMJ ci sound bi mu ngi naan pendant ce temps jël bi ay tuxkatu bon rek ñoo fa fees ñoom ñu lubal ay milliards di gën a am ay liberté gis nga li dóor fii mu ngi wax nu justice galsen di doxale et dëgg la il a bien boo demee ci kaso yi tuxkatu yàmbaa yi rek ñoo fa fees dell ñu war leen a jugé fàtte leen fa te parfois ay innocent yu xamul dara la ñuy doon ay innocent yu xamul dara ñoo fa nekk mais nga xool biir galsen borom tur yu mag yi ñi nga xamante ne nii siiw nañ wala ñi nga xamante ne nii ci état bi lañ nekk ñooy sàcc ay milliards ci suñu xaalis après du mujj fenn kenn du leen jàpp kenn du leen jugé léegi loolu ñu teg ko fan moo tax nag BMJ ne foog justice en grosso modo lu ñu mën a jàngat ci sound bi BMJ bi mooy BMJ dafa ñëw pour wax ak justice Galsen bi nu muy doxalee affaire yi affaire de kumba am ndey la ak kumba amul ndey BMJ dafa ñëw pour wax ne justice Sénégal affaire de bras long la BMJ dafa ñëw pour wax ne justice Sénégal c'est pour les badoo la lii nag moo tax BMJ def sound bi de toute façon man personnellement dama koy encourager di ko wax félicitations à toi parce que rap mom ego trip neex na trop clash neex na trop sound love tamit pareil neex na lool sax mais genre thème yu melni dañu koy soxla ci bir game bi parce que li moy jikko rappeur xeexal ñu amul voix en plus étant la voix du peuple bu waxé ñu bëri dinañ ko dégg. vraiment def nga rôle rappeur dëggantaan man mom j'adore j'adore et j'adore ok sama gars yi gis ngeen sound bi MJ bi intitulé monsieur le juge léegi nag yéen laay laaj à vos claviers nan ngeen gisee sound BMJ bi di monsieur le juge léegi nag buñ jógee ci BMJ dañuy jàll ci deuxième sujet bi qui concerne J21 alors les gars J21 moom tamit dafa génne benn sound qui a pour titre fagaru mais avant ñuy xuus ci sound bi nañ dem xool ci tuuti ñëwaat léegi léegi ay ca ñu dem. mais maman nekkul nit ki gis mais moom ma jiital na ma fagarol fagarol dama jël ci sama siis man yëngal fi indi sa yiis ma te du yoole du police man fagarol fagarol fagarool nga ne danga ma bëgg siis ko fagarol jappal deret dina tiis kon fagarool alors gis ngeen loolu mooy sound Dieye 21 bi c'est intitulé fagaru fagaru comme vous l'entendez c'est un mot wolof boo leen xoolee bit bu mu utiliser ci sound bi drill la léegi dafa xew fii Galsen mais nag attention drill nekkul n'importe quel rappeur moo ci tegu de hum. du n'importe quel rapper mais Dieye moom da say tegu nice te wane na ko ci biir sound bi da ko assuré vraiment en plus ku xam Dieye 21 yàgg koo déglu xam ne nag sincèrement et sérieusement lu muy rab dépassé na fii moom dafa nekk artiste boo xam ne nekkul di punchline ci ay soundam non moom nekkul ci yooyu de sama gaay moom ci côté musicalité bi lay job te loolu mooy li la gën a mën a may nga génnee sa musique or galsen même ku déggul langue bu muy wax sax mën nga te par la force. et en plus de tout ça mon flow bu mu yor benn la ci biir game bi mooy waral force da lay dugg bu dégloo sound bi sax yaa mu flow la et ça ça veut bien dire que ni moom flow bu mu yor dafa en plus beaucoup na ci artiste yu dàkk clip parce que vraiment clip yu set. You am qualité lay génnee je sais pas ba xam sétlu ngeen ko ou pas mais ces vidéos oh j'adore c'est extraordinaire j'adore j'adore et j'apprécie vraiment légui gis ngeen lolou moy sound J21 bi intitulé Fagarou. mais question bi lan la lutax tax J21 nek artiste bu meuna rap meun liggéey gëm ko aussi et en plus il est très très sous côté. pourquoi ça à vos claviers bàyyi naa mu alors lii laa leen c'était votre très chère et adorable Sister Kenza, votre animatrice de luxe. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer surtout la cloche de notification pour ne pas rater aucune, aucune de nos prochaines vidéos, de partager et surtout de liker. Comment ça la tamit de nga ma message sur ma page Instagram Kenza l'officiel ou sur ma page Facebook Kenza 221 alors peace and love les gars Dilen leen ñaanal mak salam. salaam mouti ci Bye bye. à la prochaine inshallah.